bi gën a naqari yokku courant gi Macky Sall daal bu kontaanee ci deuxième mandat yi critique yéene kaay ma mën na caa léeg-léeg jiw am ñu tey nëpp yàqu Macky Sall dafa am ñu mu àndal nag ñoo xam ne daanaka xel tey na ci ñoom mënees na leen tuddee sax mafia yéene kaay bi ne ma kulum juum waaye bari na ci tool tool ak i dil ak i jafe-jafe yoo xam ne ñu ngi koy indil Macky Sall te dara waralu ko loolu sàcc alalu askan wi grand place ne ma mooyee xoolal mbiru jiw gi coowal jiw gi mi ngi ni kurru ci biir dëkk bi tax ba Bachir ba daal di xam le ni jiw gi ma ni la armée bi lañ ko war a jox mu daal di koy séddale ndax mu Cissé Lo rek ci dëggam la nekk ñoom waa aar sunu moomeel porté nañ plainte contre nag ñi nga xam ne ñoom ñoo di tourner semence bi jox ko ñeneen di sàkku ci ministère bi ñu dénk mbay mi mu publier liste gros producteurs yi ñoom ñu daal di xam le nii marché wu arachide bi ma mani la moo yées bu drogue bi fii ci réewum Sénégal ay bandi organisé ñoo ci nekk di xëcc nag ndaxte ñoom ñoo yor nag mbir yi seeni loxo la daal di taxaw ñoom ñu yëngu ci mbay mi nag xam le ni Marème Faye Sall daal moo war a promouvoir li nga xam ni moom moo di na consommer gi dafa war a organiser ab dîner de moom kor Macky Sall boo yoo xam ni mbaxalu saalum ak cere baase daal lañ fay daal di servir waxtu woowu moom ñay lekk cere baase ak mbaxalu saalum ca kasug rëbës ba te ñaxtuk askan wi donc taxaw leen jóg moom moo di Guy Marius Sagna ak Babacar Diop ak ña ñu àndal réew mi quotidien audition yi day niki tey lay tàmbali moom docteur Babacar Diop moo koy daal di tàmbali yéene kaay bi dema Sud-Est day ñu ngay menacé nee ñu nag juridiction internationale yi lañ daal di jëm ngir ñu daal di bàyyi docteur Babacar Diop mi ñoo lànk nag xam le ni daañu manifester aljuma ji ca place de l'indépendance ca xolu ville ngir ñu bàyyi ñi ñu daal di jàpp jàpp source aanéy vendredi bu nar a tàng kay moo nar a am ca place de l'indépendance ndax nee ñu place de l'indépendance ci Sénégal la bokk te nag gouvernement mënu leen benn yoon wala mu tëre leen ñuy manifester ci place de l'indépendance googee waxtu woowu l'observateur moom dafa samp laaj ci Malick Gakou moom lan la enquête quotidienne élection locale yi day mani la dinañ am jafe-jafey tëgg ko ci réewum Sénégal ndax dialogue politique bi mani la coow laa nga des foofee ndax na ngay xëccante naka lañ Tahirou Sarr laajit ndax Tahirou Sarr ab bandi la wala ab liggéeykat en tout cas tribune yéen kaay mag may xamal ne Bougazelli day ma nga ca kasoog rëbës ba waaye jamono ji jaamu yàlla daal la fa daal di nekkee yéen kaay groupe des médias bi ne ma Bougazelli mani la génnul benn yoon doxantu ca biti déedéet ma nga cay xasidaam rek tëdd ca ak di béggee Serigne Touba l'observateur ne ma tey laa lay xamal nag jëwriñ yi nga xam ni seenu pal mani la yàggul dara ci ay nguur koy wàccee libération ne ma ay jihadiste yu rëy yu def ay attentat yu mag ci sous région bi FBI xamal na ne ñett ci ñoom ñi ngi ñu jàpp ci kaso yi fii ci réewum Sénégal ñu daaneel ak sàcc bi nga xam ni moom lañ faat ca paal source waare kat ci dey dañoo daal di xaajaloo ci dañ ko war a denc paal wala xalif bi mi ngi ci dëggam ci li mu ne kenn du ko rob ci seen sëg yooyee oustaz Aliou Sall ne islam ci boppam may na xalif mu daal di jox dogal wala it mu lànk ñu daal di denc ab nit ci seenu bërëb imam Kanté ne dafa yomb de nit warta basé ci ay humeur di lànk wala di kenn ñu daal di koy denc